alors à la une de l'observateur de ce matin euh, ngeen jox ma journal bi fii ci écran bi donc voilà interview du président Bassirou Diomaye Faye donc Diomaye le goût de la première euh, l'observateur ne fort du face à face avec les journalistes experts en com et analystes politiques ñoom ñëpp euh, dañ ñoom joxe nañ seen xalaat ci li nga xamante ni moom moo tax président Diomaye Faye euh, daal di kon réussir jano bi nga xamante ni janoo na ko ak taskatu xibaar yi mais aussi fi nga xamante ni am na fa euh, yenn ci ay jafe-jafe mais aussi lu jëm ci wàllum fond ki dëgg yi mi ngi ci biir l'observateur Bougane moom mi ngi listé les failles donc loolu mu ngi ci biir kon yéen kay di l'observateur Miss Sénégal 2024 Mame Fama Gueye lay wuyoo au fait euh, de la beauté ci biir l'observateur ba léegi week-end euh, foot MPC en grâce la fédération sénégalaise de football en disgrâce loolu aussi ci ak euro bi nga xamante ni Espagne moo bàcc bàcc yu métti métti waa Angleterre euh, loolu démb la woon ci li nga xamante ni moom mooy donc euro bi ñëpp Espagne la ñu faraloon donc un document également à suivre ci biir euh, l'observateur dañ koy fàttali yéenekaay groupe Futur Média ñu ñëw ci record bi nga xamante ni euh, ba léegi ñoom tamit ñi ngi ci groupe bi mais spécialisé euh, ci lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram parce que loolu la donc ñu ñëw ba léegi les Pélicans d'Afrique euh, des clubs Abdoulaye Wade seul stade homologué euh, mi ngi ci yéenekaay euh, bii di record et puis Euro 2024 finale Espagne Angleterre 2 buts à 1 la Roja donc quatrième historique mu nekk nag li nga xamante ni visage donc de El Tactico des chantiers pour Cissé mu nekkoon ci une euh, kon euh, record euh, yéenekaay dans quelques instants la météo